jëmm ji weesu la jëmmi xutb ndax bis tàgge nañ ko benn xutb ne ko diw dee na bàyyi yëngal bopp ne est fa ma ko romb biig néew na ka fa dem ñib si te bàyyi da kaa romb di dem mu ne fa ma ko romb la wax néew na ka fa àgg ñib si yow même ki fa romb moom lan la kenn xamul moo tax Mouhamadou ibn Mahmoud ibn Abdallah naar bu màgg boobu fu la ci Mauritanie mu ne ñun daal mënuñoo xam bàyyi mooy kan def nag ñu ne xamuñ mooy kan waaye nañ laaj weer mi nga xam ne moom yàgg na fi lool ba xam moom lu ñuy wax mu jàkkaarloo ko weer yi moom naar yu naan ko yaa badru waaye xaki nabbi naa bi anbaa'i maa qad raaytu tudaawi بعد أجوائي فقد رأت مرت عليك قرون ليس يعلمها إلا العليم وقد تمسس بزلوائي موي واخ بنان وهل رايت مثل السيق في صفه فقد رايتك مثل السيق يا بدر mu ne ko eeyo weer maa ngi lay laaj yow mi nga xam ne fii la xewee fii la ne Adama fekk yaa ngi fi ñu yónni Siisa yaa ngi fi yónni Diw yaa ngi fi Moussa yaa fi Aysa yaa fi Ibrahima yaa fi Luut yaa fi Nangam yaa fi ñëpp fii la leen fii lañu xëy ñu yónni leen bañ dee yow ba léegi yaa fi dara utiw la nangam sa kanam la xew xare nangam sa kanam la xew des nangam sa xew sa kanam la xew xeexu nangam sa xew sa kanam la xew waliw sàngam sa sa sa kanam la xew maa ngi lay laaj nag yow weer ndax mas ngaa gis ah bi weer noppee loolu moo koy wan ne weer tontu na ko ne ko musuma gis ku mel ni baay waxal absarat aynaaka misliya saayira suluki wa jazbi wal ulumi fayuku bàyyi mu ne yow mii di ma wax ak man ndax sa bët bi mos naa ci ak mel ni baay maa koy laajaat yéen waa tant bi ndax mosu ngeen a gis ku mel ni baay ku mel ni baay amul te mënta amul ñu ngi sant yàlla ba mu ñu boole ci moom. سائق السعادة يسوق لحضرته أناس مصارف الإله يصرفونها عن قريب aji omat ci texe mooy omat ku ko neex jëme ko ci texe aji omat ci texe moo ne omat ci min ci bàyyi waaye newut suñu nguur yàlla nañ ci dëkku yàlla nañ ci dund yàlla nañ ci ci dee kii nañ ci bàyyi kon ñu ngi sant yàlla bu baax guddi bi guddi waaye dafa nekk ni ñun ci bàyyi la jotee ku sëriñ bi ñuy waxal